بسم الله الرحمن الرحيم كابتن abal ma ko ma def ci yow fukki bayit yu teg juróom ñetti xarit ba ñëpp xam ni yaa di mbër Mbàkke abal ma kayit ma def ci yow fukki bayit yu teg juróom ñetti xarit ba ñépp xam ni yaa di mbër yaway borom daaru mi na xutbu samaan bi yaa fi man jaayul de bëgg na alamal mahmudu fall 18 safar yaa tax ma sol mbubbum géwél dem ab bindandi waa bawal yoñ foore ak derub kewel fas yéene xam ne nag sa mbir yaa doon nu tey ngeen gi rasul الرسول شبت خادم الرسول يوم تنجان ما تمخلول تفس ندلك دنر islam di nee na yaa ko wuuf démb danga fekkoon mu loof nga ko yofal ko bam sa xilaaf dinaaw ba dugg ci gépp kër islaam ji nee yaa ko démb danga fekkoon mu loof ko tey bam sa xilaaf dinaaw ba dugg ci gépp kër yaa tax jullit yi bég di ree yaa tax ibliisu dem teri yaa tax ba mag ña daan wuree dëkke durus ak ndaw ñaa ngi lay soppakanaw di jéema aw yoon wi nga aw kuy dund yaa ko féete kaw yàlla la jox tey bi la cër bur yàlla rekk xam sa mbir bur yàlla rekk xam sa cër amaana nga i ahlu badar amaana sax yaa di omar bégal sant sun borom mi def la ngay sibatul xadim xadim defar la ahmadul xadim donol sëriñ bi yaa ko yor yàlla ak yoneen rekk la ñor moo tax nga am yitte ju sar guddalu fan te gën a wér ba mel ni Seydina Xudar wàññeeku nañ ci sunu a jox la nga sof ci say mébé sag dundu aar na bépp ni tàggat nga roox yi ban sawar boo dugatee jigéen gaal te bëgg mucc moo du faal ñaaral ci yàlla mi kamaal ba capitaine ba dëkkee moo tax ma naan la capitaine ngir yaay ki tax ba gaal gi teer réew maa ngi la i tëggali xiit di la ñoŋal ak wagar jox naa la man samay dara di sàkku nag ci yow gërëm gudd fan ak wér yaram saxoo di way ak a wesar dund gu neex ba dàqalam fii ak fële yal nañ ko am jaw fal faraa yal nañ ko jam lu waay di sàkku nañ ko yor xéewal gu mel ni aljanna yal nañ ko am ci àdduna di xëy di soor fukki mbana di jox murid yi ne sa kër na yàlla fay la ngeen gi fay te fay murid yi ngeen gi fay te fay mariid yi bëgg fay sa yoon wi xopp leen naqar na yàlla fay la ngeen gi fay